mit euh, ka mu daan seel bigëb ko jàppale ko muy buuba yaa ngi dégg euh, moom itamit dañ koy félicité parce que ca commencement ba la ba tey mu yegg si fii nee naa ko nag mooy li ko wax ne ko lii du dara li ci kanam moom moo ëppati mais nag sas la lu ndaanaanu waykat yu jigéen yëpp di xëccoo ñu ne yow lañ koy jox dan la sas ci ginnaaw miroir bi nga koy xoolee seetu bi mais ci kanam nga jëm léegi nag il faut mu xam ni mi ngi ci beneen level romb na yenn étape yi mi ngi ci beneen level nag liggéey rek ak pat sans bruit rek moom moo koy joxe parce que carrière professionnelle euh, carrière internationale ci musique dafa metti dafa metti boo koy def euh, day mel da ngay mel ndongo daara la ngay jar sa réew doo toog doo ko jar ca euh, tubaab ya parce que xamuñu la da ngay mel kuy jàngaat mais musique sénégalaise mën na gën a jëm ci kanam ah donc il faut ñu xam ko loolu maîtriser instrument yi maîtriser way yi xam ni nag métier bu am maanaa métier bu am parce que da ngay wàcc ci réew nekk musicien xamuloo fa kenn dem ci benn club daje ay musicien mu mel ni xamante ngeen dix ans ba guddi googu mën ngeen ànd ba fajar donc loolu musique moo ko mën donc euh, mission la encore une fois ñu félicité ko félicité leen yéen tamit parce que liggéey ngeen ci lu bari du dëgg euh, comme ki nga xam ni moo téye caméra bi nii di Médoune yéen a ngi rek et c'est bien et il est temps suñu musique ñu euh, yéen ñi yor métier bi gën ko jaay parce que yeneen réew yi ñi ngi jaay seen musique réew donc dompat comme ni ko Youssou waxee sànq ci sot la bokk bi mu wàccee dafa ne balaa kenn gis Awards bi Youssou Ndour moo koy gis ba pare loolu nag am na lu muy wax Viviane jàmbaar la guerrière la de te boolewul dara ak wax ah ah mais ci kanamu euh, kanamam moom mooy yeneen yeneen yeneen doom bu tànk ci musique am am euh, waaw waaw loolu yooyu yëpp mën na ñëw liggéey la laaj rek yooyu yëpp mën na ñëw